Euh, donc maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di présenté wu di wax ni man la monsieur le maire Pape Meissa Faye nekk deuxième adjoint au maire de la commune de Malicounda euh, tey nag ñu amaloon point de presse boo xam ni dañ ko def rek ngir indi ay leeral par rapport ak euh, sunu position ci bureau municipal bu bees bi nga xam ne moom la ñu samp bërki démb te ñu ciy sant yàlla bi mu ñu ci boolee d'abord di santaat yàlla tamit ci bi mu ñu may ñu fekkee ko Euh, ndax euh, olof yi ñuy wax ni bala nga naan naam da fay nekk ba pare. waaye di sant askanu Malicounda ci confiance bi ñu am ci ñun te jiital ci le maire seen ñu leen ciy santaat bu baax a baax a baax di ñaan yàlla euh, yaakaar bi ñu am ci deuxième mandat bi yàlla nañ ci am lu kawe seen jort. li tax ma wax ni dafa baax ma def conférence de presse tey point de presse may def mooy ni ma ko waxee barki démb rek ñu bari ñu ngi saalit am na ñoo xam ne sax. niñ koy waxee mooy sunu cër dafa nagam par rapport ak position bi nga xam ni moom laa amee ci conseil bi ci bureau municipal bi am fu ñu ma doon xaar muy ci post premier adjoint au maire la ma waxoon rek laa ciy waxaat nag euh, mbir su fekkee da nga ko séq ak say naw lay gor 58 conseil ñam yëpp ci coalition benn bokk yaakaar ñëpp ànd yéene la ko su la ko luwaa xañee boo nee tey lii dafa ma metti ngor dafay des ci yow te ñun dañoo bëgg a gore ba kara ñuy dee mbir mi nag li ma ciy doole leeral mooy bu kenn ni dañoo xeex monsieur le maire Pape kenn xeexul monsieur le maire Pape parce que damay jaajëfal le maire Maguette Sène jaajëfal ko ci mandat bi ñu génn jaajëfal ko durant campagne bi jaajëfal ko ci ni mu taxawee ci bisu élection bi ak avant élection bureau municipal bi ndax bi nga xamante ne si waxi parité bi jóg na maak moom ñu ko téléphone yëg naa ci moom lu ko metti bokk na ci li tax Malicounda ñu mujj ko installé ci arrondissement Sindia bañ bu monsieur le bañ ni sama premier adjoint góor lay doon parce que monsieur le maire Pape Maïssa mais loolu bi ma ko yëgee man maa waxtaan ak moom pour libérer ko décharger ko ci li nga xam ne mi ngi ci boppam ndaxte tey ni ko sous-préfet waxe arrondissement de Sindia huit communes yi fi nekk sept yëpp d'accord ci respecte parité bi du ñu ko d'accord ndax bëgg papp may Maïssa ak bëgg cëral may Maïssa bu ngor amee man may sa may taxaw waxtaan ak sama kilifa ni ko lii su ko su ko ngor nangoo tamit euh, loi bañ na ko te dañoo war a topp loi parce que ñun ñoo fi loi donc sous mi nga xam ni mooy représenter le président de la république ci arrondissement Sindia su taxawee ni parité bi c'est le bureau municipal su góor jiitoo jigéen moo ci war a topp mais du ñu def lu may dëggal li mu wax topp ci waaye ànd ci ak mbégte te xam ne jigéen ñi ñu ko jox ci ñun la ñu bokk te xëccoo ak ñun cër bi wax naa ko barki démb madame la maire Khoudia Faye mi nekk premier adjoint au maire adjointe au maire mais buñ ko laajoon kan nga ko yéene mun la le maire Pape sa Faye mais loolu doy na sëkk donc ma wax ni du benn conseil moom ma xeex du monsieur le maire Maguette Sène xeex au contraire ñoom dañ ci gêné man maa wax ni lii bu mu gêné kenn parce que li am solo du première du sixième li am solo mooy cër bi te sama digganteeg monsieur le màgget Maguette ku ne xam na ni jox na ma cër bi jox la cër nag paasewul ngay dem élection ak lu toll ne élection ni mu compliqué ak ni mu mel nga ne ki ma ci pour la coordination c'est le maire Pape Maïssa kon maa ngi wax ak samay mbokk d'abord maa ngi wax ak waa Malick Ndolof maa ngi wax ak waa commune Malicounda ñëpp nañu jàpp ni lii yàlla dogal mooy li yal yàlla nay li gën ci man mi dogal bi wàcc sama kaw yal nay li gën ci ñi nga xam ne ñoom laa ko seqal waaye yàlla nay li gën ci Malicounda ma waxaat ni nag tey laa gën a engage wu ceetu monsieur le maire Maguette Sène fas ko yéene jàppale parce que wax dëgg yàlla ànd naa ak man ci ngor ànd na ak man ci teraanga te nag fasuma yéene lu may fay ko ngor boobu ak teraanga boobu mu ànd ak man te li ñu yittee leen ñuy campagne taxawuñ fenn ci biir campagne dañoo bëgg poste adjoint au maire li ñu waxoon mooy renouveler mandat wu le maire Maguette Sène donc loolu moo nekkoon suñu objectif première donc objectif bu atteindre nañ ko li fi des du position li fi des taxawaay rek la te taxawaay boobu nag incha allah daañu ko taxee ba mu mat sëkk ci ginnaaw le maire Maguette ma ciy invité nag waa Malicounda yëpp ñu xamee ko noonu te jàppe ko noonu xëccoo amul xuloo amul xeex amul li fi am mooy waxtaan ba déggoo te noonu la ñu waxtaanee suñu biir ba déggoo fas yéene ko doxalee noonu loolu moo tax moo woote tey di jaajëfal population bi di jaajëfal la presse di leen ñaan nag message bi ni ma ko waxee léegi nañ ko partage nekk fu mu war a egg yëpp maximum de partage ba Malicounda yëpp xam ne lii la pour que ñi nga xam ni dañu jëkk pour jaxase xel yi pour jàpp ne dafa am lu diggam ci diggante monsieur le maire Pape Maïssa ak le monsieur le Maguette Sène nañu tëdd nelaw rien que ce matin laa ko représenté ci benn réunion boo xam ni préfecture bu Mbour dañ ko amele kooku bit en présence du préfet et du sous-préfet ak waa Promoville loolu defe naa ni ko doyloowul doo ko fal démb tey nga yónnee ko foofu muy lu am solo kon nag li am solo mooy la mise en œuvre te tàmbali na ko la ca des xujja fay nañ ko ñaanal yàlla poste bi mu yore réel na ko jik ak tous les tous les bureaux municipal ak tous les conseillers waaye jik aussi ñi nga xam ni ñoo ñu jàppale ba ñu yegg fa lii daal laa amoon ci kàddu yu ma yëkkati di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa waaw bu loolu waxee monsieur le maire man man am na ay quelques questions yoo xam ne bëgg naa ci wax maanaam lu jëm ci xam nga yaa ngi wax ne maanaam euh, euh, point de presse bi li ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne say ñooñ lañ jàpp ne maanaam sa cër dañ la ko xañ mais ñi nga xam ne euh, jotuñu am information wala du ñu jëfandikoo internet bi ban levier ngay activer pour ñoom ñu xam ne mbir mi loi de la parité moom la maire respecté. waa xam nga lii moom dafa bokk rek ci ci anam yi ñuy amal pour nit ñi yëg ko muy euh, taxaw ci presse bi waxtaan ak waa presse bi. Mm-hmm. mais wax naa ko léegi bi ma toogee ak ñi nga xam ne ñooy sama staff. Mm-hmm. dinaa ko tàmbali ci d'abord ci Malicoundorof bi ma dëkk. muy dinaa def ay réunion ci quartier yëpp. Mm-hmm. li gën a sabab réunion yi tax mooy dem sargal askan bi jaajëfal leen. waaye leeral leen tamit liñ doon xaar li tax amul muy parité bi. waaye noonu lañ ko fas yéene defee tamit ci biir commune bi yëpp. ci commune bi yëpp 22 villages yëpp fu ci nekk daañu fa dem jaajëfal leen wax leen aussi bureau bi ni mu tëddee li tax mu tëddee ni te bureau bi encore une fois dama koy wax at ni mu tëddee dafa rafet amul dara lu ci ñaw amul dara lu ci ñaw dañ ciy santaat yàlla bu baax a baax a baax ci ni mu tëddee voilà. bu loolu weesoo mandat de grand projet yi moom naka lay demee da ngeen di tàmbali léegi wala balaa élection présidentielle. <laughs> waaw mandat de grands projet tàmbali na. <laughs> waaw def tey su ma demee réunion Promoville. ku wax Promoville wax tali. kon maanaam des grands projets tàmbali na parce que ñun keroog bi ñu falee jour boobu la monsieur le maire ni ñu liggéey bi tàmbali na donc amul leen lu ñuy xaar parce que attente yi bari na. te yaakaar bari na. donc nelaw amatul jublu ci rek la ñuy def am na yu mu annoncé muy tey euh, Pointe Sarène euh, comment dirais-je euh, les hôtels bi nga xam ni war na ubbi au mois d'avril donc kooku defe naa ne bu ko wax grand projet wax hôtel bu toll noonu war a ubbi ak 500 lits. grand projet defe naa ni foofu la foofu la foofu la yem waxuma la fa la tàmbalee mais fa la yem waaw te am na yu bari yu ma annoncé yoo xam ni euh, avant ñu dem ci campagne bi sore woon nañ ci trop donc moom nag day koo xam ni bala mooy digee dafay téye ba pare donc jàppal ni lépp lu ma annoncé ci biir campagne bi bu ko téyewul à cent pour cent mën a ñox ni téye na ko a 50 voire 80 pour cent donc grand projet yi grand projet. kon yàggatul daal léegi mu tàmbali. ah non non non yàggatul léegi mu tàmbali léegi mu tàmbali. parce que defe naa ne ci biir loolu wax annoncé nañu hôtel hôpital aussi bi war am falox niveau 3 ñu war ko def falox annoncé na ko barki demb donc euh, loolu yëpp avant ñu dem élection def nañ délibération yi ba pare donc fu nekk li ci des mooy tàmbali rek moo ci des